respecté woon naa la mais tey laa la gën a respecté Souleymane moom mi ngi nii depuis bu parrainage bi commencé mi ngi may wax ne grand yaay nekk suñu coordinateur ma ne petit frère mbuba bi day yaatu bàyyi rek ma gunge. mais tey ji dama lay wax ne mbubb bi yaatu woon retaillé naa ko sol naa ko jot na ma dinaa nekk sa coordinateur mais ña jox ndigal nag mooy jeunes yile Lindoor wax na ko jamono fi mu toll moo di xale yi ànd ak jigéen ñi ñooy defar mais nag bépp xalaat bu rafet bu jëm ci politique aussi dinaa ko jël ci yow ñi ngi ma gis nii may dem xale yu ndaw yi ma doon àndal ay Ibra Ndaw ay Astu Gueye ay baay musa ñoom lay àndal ba léegi te bu soobee yàlla lii nga def fii lii nga def fii ñoom gis nañ ko te ku ci amoon engagement benn dinga am engagement fukk parce que Souleymane mënu fi juddoo màgge fi am fi deretam ma juddoo fi màgge fi keneen ñëw dinu gañe bu doon jamono yu mag yi dina xaru man dinaa xaru loolu nag waa dëkk bi ñoo koy waral lan la Souleymane deseel waa dëkk bi xam nga élection bu na gañee mooy lan li tubaab di wax honneur moom mooy dañ ci yow mais tànk que yéen a ngi nekk suñu kanam wax naa ko waxaat naa ko tant que yéen a ñuy yaakaar ngeen takku nekk benn bloc bii ñu des Anda ak Suleiman, anda ak Ismaël Major Fall Anda waak ANCP dama ne lu nous suñu kanam bu soobee yalla war ko a donc il faut que à partir de demain je vais faire pour la première fois m'organiser une rencontre vie, ngeen tok mais su paré boo leen dajee de yéen yéen a ooteel seen ñun man ak Souleymane Assane Diaye Clément ak ñoom Maguette Ndoye nañ seet ñun naka la ñuy def suñu réunion pour leen encadrer fiche yaa ngi nii à partir de demain travail bi dafa war a commencer ñu xam ne jëmuñu ci jaaxaan dañuy jàkkaarloog suñuy moroom ñoom ñu joxe seen engagement ñu ñu joxe suñu engagement boo ñu ëppalee rek jàppaleen na ñun tekkiwuñu dara ñoom ñoo tekki dara